mbokk yi ginnaaw inondation bi nga xam am na Touba nag soxna Amy Mbacké jël na loxo dugal ko ci bu baax a baax ginnaaw bi mu ko defee nag fi nga xamante ni moo di Alieu def ko fi nga xamante ni moo di Ndamaatu def na ko nag fi nga xamante ni moo di jantama mbooleem ndoxu taw boo xamante ni rek amoon na fa moom soxna Amy Mbacké jël na oto pomp yóbbu ko fa ñi jël ndox mi nag di ko yóbbu fi nga xamante ni moo di bassin bi nga xam fa la ñuy yóbbu ndoxum taw bi nga xam moo nekk ci Touba. Soxna Amy Mbacké Daas nag ku ne xam na ko ci ginnaaw président Macky Sall ndax moom lay jàppale waaye jël na loxoom nag dugal ko bu baax a baax baax ci mbënd mi nga xamante ne am na Touba. mu mel na nag hôpital bi nga xamante ni mooy Matlaboul Fawzayni nag ku ne xam na ni tali bi nga xamante ni moo jógee route nationale bi jëm ci hôpital bi dem fa yombut ndax gis ngeen ambulance yi gis ngeen sapeur pompier yi niñ ciy def mu mel ni nag daal jël nañ mboolem ndox moo xamante ni nekkoon na ci diwaanu jant Mahwa rek vidéo ko kon daal waa jantu wax dëgg yàlla ñu ngi jaajëfal soxna Amy Mbacké Daas mu mel dañ leen di bàyyi nag kàddu gi nga xamante ni moo ko yoral fii ci jant Mahwa di Abdou Lahad nag bi ñu paree ci loolu nag yëkkati na ay kàddu ñu déglu ko. waaw soxna Amy Mbacké tamit ñu ngi koy ndax ginnaaw yàlla tamit mën nañu lii lépp moom moo ko waral ndax moom moo si jàpp bu baax a baax a baax ndax maanaam booy xool tablo hôpital bo hôpital janatu fi mu nané route principale amul tali bu ko gëna nek farata ci tali ginaaw tali jumaaji ji ndax bon mën nañu malade fi lañuy jaar ambulance sapeur gis nga bi nekké légui ni di fi ambulance yaangi jaar ak sapeur pompier yoy yop kon fi li farata la bon sono si am initiative comme dañ ne ñoon dañu bëgg nettoyer tali bi mu envoyer ñu camion citerne muy tank di dem di touri di ñëwaat di dem touri ba ndox bi jeex pour nga xamné ne daf ñuy yombalal liggéey bi wa té loolu yëpp mënoon nako ci baña fekk ndax sa suñ ko loolu mais da gis na lolou lu baax la mu ne ci koñ bi bon mu ne dañuy jappalé dal jappalé jeunesse bi te lolou dañ ko ci sante gërëm ko ci ndax semaine bé passé rek bi ñuy dër goudron bi waaw mën nañ ne ginnaaw yàlla tamit appuyé ci la motax lolou am kon lolou yëpp dañ ko ci sante di ko ci gërëm te xamné amuñu fayam limi xalaat nak ak limu bëgg mom bon yalla nako yalla may li dal ndax at bu ne ñu défar ko lolou mom dëgg la té chaque année ñun ñoo ci nekk di soobu di défar defar yaaka nañu bu magal bi jallé jàmm dal pas-pas bi ñu am moy toog ak soxna Ami mbacké waxtaan ak moom ñu jëm ci trouver solution gëm naa ne bon dina ci def kéemtalaay kàttanam ba nga xam ne bu soobee yàlla gëm nañ ne bu ñu ko defaraatee bii moom ah du nekk defar tali bi waaye xanaa amaanaam ay ngàcc ndox wala ay xeet yooyu noonu waaw loolu daal lañ bëgg fi mu ne nii incha allah bëgg nañ bu magal gi jàllee ba mu feex ñu toog waxtaan ci ak moom mu jéem ñu see jàppal ci quartier bi mooy maanaam xam nga fi mu ne li ko tax a jóg mooy dimbali jeunesse bi dimbali mag ñi dimbali mbootaay yi ndax wax nañu ko fii ci jamonoy campagne ne ba bëgg bu élection yi jàllee ngeen woon ma bépp mbootaay yu fi nekk ak GIE ak jeune ñu toog ñu waxtaan ma jema xol numa len jappale ci projet yi wa bi moko waxe yag na boobu ba legi nak amana meñ na jot mo amul wala yoy non e beug nañ bu magal bi jalle inshallah man na jema dajale meru mbootaay yi ak jeunesse yi ak ñima meuna dajale ñep ñu tok waxtaan ak moom ñu trouver solution ndax mom bon comme ñu koy def fenen diko def ay tok fenen ak fenen kon gënu ñu ko yello wa ndax fi meene tay boko tuddé jannatu ngay wax ndax fi la nek fi la borom kërëm nek fi lay njabotam nek wa kon lepp lu muy def farata bi jannatu la wara nek nekk waaw rabbi waaw kàddu yu may jeexale message la sonjee la lépp la waaye ndax li ma bëgg mooy maanaam jeunesse bi jeunesse su janatu ak mag ñeeg ñi fi nekk ak ñëpp daal su ma soñoon bon ñu jéem a xool nu ñu jàppalee soxna si soxna Ami Mbàkke ndax am na yéene defal janatu ñu ngi koy defal ci àll bi wax naa la ko ay ndaamaatoo ak aliyaak fu ne ay daara jolof côté yooyu yëpp dañuy wax ci ay baaxam ak yëpp te ñooñu ñëpp gënuñu koo yelloo ndax moom fii lay yeewoo fii lay njabootam di yeewoo fii la borom këram kilifaam di yeewoo kon ñun lépp lu mu def ci àll bi rek ñooñu gënuñu koo yelloo bon mébét bi ma am mooy man mettre en rapport soxna Ami Mbacke ak waa Jannatu yene boobu laa am waaw ndax man xam naa njariñam gis naa njariñam dem naa fi ay sargalam ak yëpp ñu koy defal aliak yëpp kon gis naa ay capacité ak man manam loolu nag laa bëgg def ko fii Jannatu te incha allahu rabi dinaa ci taxaw dama kéemtalaay kantan ñun ak jeunesse